moom Cheikh Ibra Fall maam Seex Ibra Faal la boori jaan lay laa la lay lay laa illa laa Faal njaga yaaram maam Seex وليس يدي مثله له نعم سيدي مرامي من المولى هداني بلا زال نجاي سبيل الآن نبينا محمد وزيد برب زيادة له به وما زال قلبي به إذا زاد خيري لخير برايا به إلى من بشارته ولي غادة تاسيسه بنا سدات دين يعني لا يا إذا ذلك كونه لخير ولا زرطة هو كل سود دين هدياتنا تسوق لدى الله سرمدا داري إلى حوض زيدتي حوانا دار الخاف والخلق ديننا بيدا بزيرود هذا كل مرسدين إلى خيرنا تنبو تزيد حال ودره لنا خيرا من غير منجد زبعت لخير الله بما لم يلم به وسبى لخير الله ومولاي قصدي ما به هويت سلالا سافيا خير مولد إلى لاعب الموتى لواجهت ما به حيث زاد الرجفات خادم رسول الرجفات خادم رسول درجة فاتح خادم رسول درجة فاتح خادم رسول خادم رسول درجة فاتح خادم رسول درجة فاتح خادم رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا يا بور دي بروم Ñas du Aysa Mbàkke lii du neen yàlla la yàlla yàlla yaay buur di borom yalla suma don yalla yàlla ngeeñ ma du du ñibbe sëriñ Abo mbake li du neen yalla la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah di borom la ilaha borom

la la lay lay la la mam seera faal faal lay la xa illa mam seera faal sëriñ abo mbàkke amoo morom mbàkke ñu ngi ñaan nga yàgg fee faal lay Mbàkke amoo moroom ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi fa lay lay la la maam seera faal faal sëriñ abo mbàkke amoo morom ñu ngi lay ñaan nga yàgg fee lay ñaan Mbàkke sukak raam lañ lay nuyoo gàdduy koros jafe ndigal Mbàkke sukak raam lañ lay nuyoo gàddu koros jafe ndigal yomal xiyaame bay faal bi nga boole noo samam ja Mbàkke la ilaha lay la la maam seera faal lay la illa faal sëriñ abo mbàkke amoo morom mbàkke ñu ngi ñaan nga yàgg fee faal lay la illa la lay lay la la maam faal sëriñ abo mbàkke amoo Mbàkke sukak raam lañ lay nuyoo gàddu koros jafee ndigal Mbàkke sukak raam lañ lay nuyoo gàdduy koros jafee ndigal yomal xiyaame bay fal bi nga boole noog samaam ja Mbàkke Fa la ilaha illallah sëriñ Abo Mbacke amoo moroom ñu lay ñaan nga yàgg fee. Mbacke sukkograam lañ lay nuyoo gàddu kuros jafee ndigal Mbacke sukkograam lañ lay nuyoo gàdduy kuros jafee ndigal yomal xiyaame ci daara sëriñ Abo Mbacke mu sëriñ Modou Aïcha mu Cheikh Mouhamadou di nekk fii ci waañ wi nag nga xam ne daaraam yi nekk ngembeek ñi nekk ci gox-goxaat yëpp a ngi fi waaye Lega daayiraam bi nekk Fatick léegi nag ñu bëggoon a laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci waañ wi nañu lañ nekkee ci bés bi ak nan lañ koy waajalee dañuy jox micro bi ku mel ni yaay faal bii di yaay faali sëñ Abo Mbàkke yaay faali sëñ Abo bii di soxna Xadi yaay faal la ñuy jox mu sànni ci ay kàddu bismillaahi rahmaani rahim waaw maa ngi ñaanal suñu sang bii di sëñ Mbàkke yàlla na fi sax dàkk te yàgg fi téwéer te lu mën ren yàlla na ko man déwén lu ko raw année boo dikkee nga ne bii moo gën a neex wax dëgg yàlla waaye bii moom macha allah waaw bii moom dafa ala daw mi billaahi dafa ala daw mi waaw ñu ngi koy ñaanal nag ah mu yàgg di ñu jiite di ñu jiite di ñu jiite bañ koy weer di ko wéri jamono ju nekk da ngay sikkëral sëñ Abo léegi yow say kàddu da nga koy tëj ci baatu laa bi rek. waaw waaw waaw ci si waaw léegi daal man maa ngi koy tëj ci baatu laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. allahu laa ilaha illallah. yaram Mbàkke. sëñ Abo laa ilaha illallah. li du nen Mbàkke yalla la Mbàkke su do nen Mbàkke du sore mang koy teunk fi rek waw ko ñaanal rek dal yalla na fi sax dak ba mel ni Abo ak daaira bi nga xamne mo joge fatik ñu ngi len di sante bu baax li nga xamne nak mom lañu nekk ci wañu wañu mom wax deug yalla li fi ne mom dafa ala daaw ndax ku ne seigne abo ngay magali rek daayira yi daayira fatik bi top ko rek xam nañ ne luñ fa mëna def rek yépp day soti ñu ngi koy sant nak diko yaakar diko ñaanal ci barke mamam lu mu sumbu ren yal na ko yal na ko wéer ci barke Mahamed kontaan nañ dal laax desul cere desul te ñu ngi ci ceeb yi ñu ngi ci ñu ngi ci bayiwuñu dara dal wuñu dara dal wañu dal mom fi mu ne nii tubaar fakkaat la ñu jóge njem njembe itam wax dëgg yalla lañu def nañ bi lepp ba mu soti ndax ñun dañoo joge fatik guddee ñëw fekk yëpp soti ñu ñom tam ñu ngi leen di sante rek te di leen di gërëm mhm. yal na ñu dem ca kanam kanam kanam ñu di leen di sentu ña soror ba ca Touba ñun dal. kontan nañ do keur seigne Abo bi daana gum nañ alhamdullilah ah kon lolu dal dal na xel jërëjëf yaa booy yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay yee it liñ naan li duuf ci nag bi xajul ci cin li waaye ñii moom faw ñu xaj xajal leen ci ndax comme ni ko yaay booy bii waxee démb dañoo ñëw fekk fi waa Ngembe ñu nekk fi depuis barki démb bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege mbàkki Kajoor wax dëgg fa yàlla waajal yëf yi ba nga xam ne gan yi fi ñëw kenn sonn ci lekk nañ naan nañ ti lépp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko taxaw soxna Ndey Jóob a ngi nii di jëw nii sëriñ ci Njóobeen ngeen ak ñi nga xamanteni ñom ñoo joge Ngembe kon dañuy jox kenn ci ñom rek mu sanni ci ay kaddu ngërëm rek kan lay nekk ci yeen bismillah soxna Codé kon kaddu gaay salam alaykum señ bi ñu ngi lay nuyu wax deug yalla mom fi mom lepp rafet mom da sëñ Abo mo amnu fayam ndax Fatick sori na torop te teewul da xuus ba ñew ci sun biir te ginnaaw yàlla jëmmam mon taxate a teew Mbacke Kajoor gi lepp lo xamni ni nak yene nan ko fi ñu ngi ñaan yalla nako yalla yàlla bara safara bu re tawat yalla na yalla yàlla bara safara bu re njàqare yalla nako yalla yàlla bara safara ñu na ñoo ñëw ebo ba aljana rek yalla ma sha allah kaddu yi kon jeewri ñoo ñoo doon wa wañ wi yaatuna lol sax waye waaye ñepp ñepp mënu ñu ci tabbi ndax euh, yef yi temps bi mo démé non waaye bu soobé yalla dañu jallu ci mu gëna gëna yaatu kon ñu ngi nuyu ñep di sant ñep assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Abo mbàkke amo morom ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fee yéen Baay Faal yi bu leen jooy Modou Aïcha Mbacké dellusi na yéen Baay Faal yi bu leen jooy Serigne Bara Mbacké dellusi na Serigne Abo Mbacké amoo morom ñu ñaanal nga yàgg fee Serigne lay ñaan nga yàgg fee yéen Baay Faal yi bu leen jooy Modou ay sama di woy rasoolow gën ci mbindee fi Mustafa yaa rasoolow nala jamaala coy bisi mi lay ñoo gi وي رسوله جنج بندي في مصطفى يا رسوله Cebirdi milay ñongi dooti way rasolo Genji mbinde fi Mustafa ya rasolo Ala jalala ala jamala Liman ci borom aal ak baatin Mamadou Lamine kazu leer ya yaa ko naan ndax doy nga borom nana jalaala nana jamaala yaa bindu munawiru buru yaan Mamadou Lamine ndax ca la defare Mama Njaay Mamadou Lamine جمال جماله لمن دار ربي يا بنت منور بريان محمد لمينو لا شلا تفر ماما جاي محمد لمينو نارا جلال نارا جمال لمن دار baatin ba jaxal la waa Kajoor Mamadu Lamine naa la jalaala naa la jamaala naa la daala d'accord de baayam lay niroo Mamadu Lamine c'est maamam lay niroo xaratu baxara doy nga boroomo ndax li ci ko jëloon ndax seet bi kamal nga ka yi dañu la xamuloon ndax moroomo xamoon na ne yaay desam njaboot mi du ne abo mbaa mi du ne no sa baay xamoon na ne yaay desam njaboot gi jaaram masaalikul jinaanam muntaha basiro ndax yaa ma ne woon abo mbaake yaa ma ne woono yaa ma ne woon Ibrahima yëngal nga réew mi mbokk yi fi dajé yépp ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu sell muy alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di jiidante nuyoo bi cheikh mouhamadul muntaqa mbakke di ñaanal mu yagg fi lool te wér bu am ci liggéey seigne touba mu agalé ko tànd ak njabot gi di ñaanal cheikh Modou Aïssa Mbakke sun borom yokki leeram tas ci barkeem te bayyi fi njabotam gi ba lim defoon ci ñoom it ñu matale ko di ziare bu baax sëñ Abo Mbakke ci kàddu waa daayira Masaliku Jinaan bu Tuubaa na xëj noo ngi lay ziare bu baax Mbakke waa daayira Masaliku Jinaan bu Tuubaa na xëj

jërëjëf sëriñ Abo jërëjëf sëriñ Abo jërëjëf sëriñ abo jërëjëf sëriñ abo kuy sa maam sëriñ ba

jërëjëf sering Abo jërëjëf sering Abo jërëjëf sëriñ Abo jërëjëf sering Abo Abo Kita kembali leen koy bu buñ fa jógee daal kenn ku nokk kenn ku nekk yokk si barkeb Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëpp a xam ne faj aajo Serigne Bara si gaaw Serigne Bara lu wax yàlla na waaw te samaam Serigne Bamba moo bind sëpp yi ka sibti rasulillahi xay su bara sama sët ak sëpp Seydina Muhammad ku leen teg si place de paix ñooy tolloo dégg ca yàlla ñun ñu toog jàkkaaru sëñ Abo Mbàkke di ko bégal góor yàlla yi tëgg ba ñaq teñ sëñ baara ba ñaq wallahi asim tey lu way amul fii lambaata sa xam ne seew la des ñii ñooy fale ñii ñooy faj aajo ku bëgg raw ku la rus ta fekk mbàkk kajoor rus ñoo faj say aajo xool ni sëriñ bi xolam sedd sëñ Abdou kon sëriñ bi yëkkati na kàddu cant jëme ko ci mbokki taalibe bi yëpp ak képp kuy dégg rajo bi kuy dundal bis bu tedd bi di Mbàkke Kajoor ñun dey mooy sunu sëriñ mooy sunu soppe mooy sunu yaakaar àdduna ak alaaxira na sëriñ baara sëtam weesu na walliw wallahi li ngeen kañ sànq ne sëñ aboo walliw la ah maam sëñ baara ko wax de waxul doom sët la wax ay sëtëm rek ay walliw lan moo tax li ngeen li ngeen yëkkat sax xamoo ne li leen ko dey kon sëriñ bi xolam sedd na guy kontaan na nii mu def jàkkaaru yéen noonu la ñuy defal Tiwaawan ñun Tiwaawan lan dëkk di bokk si njabootu Cheikhul xaddim mu ni gane si Tiwaawan at mu nekk di xiirtal jaam ñi si diine ak lislaam ak Serigne Touba ànd koog njabootu Cheikhul Khadim gi nekk Tiwaawan gépp njabootu moom El Hadj Malick Murid Tidiane ñëpp di ñëw di siyaar si sëñ bi mu leen di xiirtal ci diine ak lislaam ak Serigne Touba xool man nii ma mel. suma demé ba am fit ci yoonu mourid ki la muy sëñ Abo mbacké té légui da ngeen sa xam dara xës day dinañ ko jibal minute yu new serigne bi soko dor kun gi ku fi joggé sa aajo fajo ki mo ñoo mokkal tuyaan ba mokk rumbu té sama loxo boolam ak talibim bu nan maître Diouf Diouf mu bok si kilifay tuyaawan bok ci ñu yor école yi gëna mag di jangalé xam-xam nasran di borom di diplôme état soxlo ko ak gouvernement waye djouf leppam seigne abou Mbacke mi la djouf mang ci wañ wala xassay di liggéey te do ko gis sax ba ba yaakaar ne diplôme wala dara te mi ngi jangal ay élèves yu bari ba élèves yi genn di dem ci bitim rew di jangalé te kenn duna na jàkk jëmmam ji ma nga ne la xasaay nekk sa togguma ak xamb ya. mo la wonel seigne abou mi amna ku ne barke Cheikh Ahmadou Bamba seigne abou mi ay faayam bii noppem gi dalam gi mu na leen jëkk xol bi sedd ku fi jóge barke Ahmadu Xaddim sa aaju mën naa faju wallahi asim murid suñu bàyyee naan café bàyyi daanu jël bàyyi joxe addee yem ak ñëpp murid fekke nañ jël bu nekk mbëkk mbir mu toj teg nañ suñu bët fekke nañ ku yuuxu mbëkk ciin waañ yëkkit tulli bax di ko naan fekk nañ ku tibbi xal te lu waay wax danga ko waxat sa biir bàmmeel waaye loolu lépp boo koy wër Afrique monde entier ci yoonu sëñ Bamba wii nga koy gis maamam ji sëñ Bamba maamam ji sëñ Baara ah Cheikh Modou Aïssa nii mu def jox ma micro bi ne ma bisimilah nii la Cheikh Modou Aïssa daan def Tiwaawan léegi Siré Diop a ngi taxaw ak njabootu Baye Góor ñoom sëñ Modou ñëpp waa Tiwaawan yi nii mu def wallahi asim bi ma déggee mu woo dongo bi ne ko bu ñuy daanalee joxal Cheikh Assou micro bi mu yëkkati xas day sama dafa daw. sëñ Modou Aïssa musuma koo nuyu te dama wax na ma taxawal yëkkati xasida kon sëñ Abo yàlla nga fi yàgg te wér maa ngi ñaan kenn ku nekk wax sëñ Abo Mbakke mu sëñ Modou Aïssa yàlla na fi yàgg te wér in ala faxdi saadaati lasina ma daw bima ma daw min saxiraati ajibaati ala almuxaddami fi daarayni xulwatihim salatu raddin daxaaxum lil mulaaxaati على الخبيب من عبد الله سيدنا سنة كاف كفاكم كل حمات على المصطفى يوم الخص فيه كرما صلاة شاف سفاهم من دسيشات الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة حد حداهم للسخامات الذي فضله لا ينتهي أبدا شلة حد هداهم لسغماته على المكرم خير خلق كل لخيم صلاة مغن جزاهم خير خيراتي المكرم خير خلق كل لخيم صلاة مخن جزاكم خير خيرات ليبقى صلاة بسلام من في هذه خلقه شكرا لا إله إلا الله لا إله ilaha illallah la ilaha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 إله إلا الله Mustafa la ilaha illa Allah kon lii soxna si seere nee na ko dama doxoon nga faj ma wax na ba dugg cancer wallahi asim fii lu fi waay fas tamit dat nattal sa bopp soxna joor tali bi ñëpp lay ñaanal ni nga dend ak bi nekk bay faalam rek di ko ñaqal rek di teral taalibe bi rek bay faal ñëpp dégg nga gars yi nee nañ ma waxal de soxna Dior mu sëriñ Abo mu sëriñ Modou Aïssa mu sëriñ Baara taalibe yi sant nan la bëkk léegi sant nan la ñi sa waañ wa sant nan la Baye Fall yi doon sikkar léegi nii léegi ñu may doy na ma soxna si bu ko kenn fàtte soxna Dior yal na la yàlla bàyyi sëriñ bi dégg nga ay mbokki boppam dox nee na sant na soxna Dior ngeen ne bi suñu aboo barke sëñ Baara nee na soxna Dior moo leen féete fu ne ngay woo ku sa doom feebar moom ngay woo kuy ngénte moom ngay woo mi koy ñaan si barke Sëñ Baara kuy xaar soxna joor yàlla nga xaddi yàlla na ko yàlla may gudd fan mu sëñ Aboo Madiyaane mi nee na moom lum ñaanal joor da koy dal nax nee na waaye juru soxna joor moo ko maye bu dugal ko si néeg soxna joor bi moo ko daan ba si biir néeg kon nee na ko ñaan mu dal mi ngi ñaanal soxna Dior loo man ren yàgg

ma ba ma yëg fi yow mënumaa xool mënumaa xet mënumaa sëqat tey nag man man damaa dem ba ndànd Mbàkke yal na fi yàgg ak nun yal na fi yàgg ak nun laa ilaaha illallah laa faal bi raw faal bi raw na soxna Joor yaay faal bi faal bi Bro. taalibe yi mbokk yi fi teew gannaaw bu ñu sant yàlla jël ci yonent bi sallallahu wa sallam ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom bàyyi ko fii te yàggal ko di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal ñëpp njaboot Serigne Touba gi ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal suñu wajur wu tedd ba Cheikh Modou Issa Mbacké suñu borom yokki leeram te taas ñu ci barkeem ci barke Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf euh, kàddu gi nag xam naa kàddu gu gàtt lay nekk ndax dañoo wax ne borom bool ak boroom cere ak xorom ak ndox tàqali ko warule tàqali ko bu amee du arange kenn ci ñoom su boobaa borom bool day yenu boolam bu ca def dara dara dara borom cere day ëmb cerem du gis mu ko sot borom doxit noonu borom xorom noonu balaa ñuy xam ne boolu ak jàppalante am solo borom bool day def boolam borom cere sotti borom ndox sotti borom xorom sotti bu ñu seqee bool bi bu ñu lekkee ba suur ku ci am xel di nga na sa morom foo nekkoon xiir daboon na dañoo wax ne fu teraanga war a nekk nga gàll fa yàq yàq nga bés bii nag li ngeen fi wax yëpp daa dëpp ak borom bés ndax xam nga ne kuy liggéey ku ne da nga yaakaar fay ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadul Amin bi mu ga moom rek moo gën a jamono Touba ci doomu Sëñ Touba yi fi jumaa ji nekk fa la gën jamono ba mu dikkee Sëriñ Tuubaa woo mag ñëpp comme nii ngeen def la dajale taalibe yi ne leen képp koo xam ne ñëwoon nga ci man ngir ma defar la yoonu murit bés ni ki tey sampoon naa ko waaye bés ni ki tey ki fi gane jamono daa indaale ngërëmal yoonu murit gépp muy Sëriñ Bara kon nag bu ngeen bàyyi seen itte ñëw ànd ko njabootam di ko màggal jar ngeen a sant it waaye jarngeen ngeen ñaanal bu baax a baax na ngeen rafetal seen njort nee naa la ñaari sofoor ci benn oto kenn rek mooy mën a daw kenn rek lii yàlla def jàmm bi da koy nangu ñun nag sant nañ bu baax bu baax sant nañ Serigne Touba ndax defe naa ne sëriñ bi daa gannaaw làkkoom daaw rek laa jot ndigalu ñëw fii nit woote na fi ay at duggat duggal ci kër njaboot sëriñ Tuubaa yi fi nekk fii fii li fi ne newul fenn ci dëkk bi amul li ko sabab mooy bu sëñ Kumba Ndoofeen moo seere sëriñ Tuubaa ba mu koy xet ñepp ngi fi woon pol yaa ngi fi woon joolaay ñepp ñepp yalla dimbalé ko mom bursin Sine bokk ci séeréer ñew mën ko taxaw séeréer ba fay gogu mo nekk ni nit ku ne mbër ma nga am nak boy dem ci lamb je mom nga yob mom ngay bakko kon na ngeen góorgóorlu bu baax baax di wax na nak talibé yi ñepp ñepp ñepp a ngi may dégg liggéeyu kër gi góor a géey laa ko dégg xam naa daane ci waañ bi waaye moom may dégg waaye jox naa ko ndigal pour kër gi ñi mën koo defar ci kàttanu yàlla góor a géey bu Tuuba moom laa jox ndigal li mu war koo taxaw xam nga ko waxee tey tey rek yëkkati na une tonne si maanaam maa tàmbali bi moom ci boppam kon nak nako talibé yépp yépp and ak mom ci liggéey bi fii kat keur sëriñ bu ngeen dem ci ci keur sëriñ la fay dugg talibé ko fay dugg kon nak nañ ci góorgóorlu bu baax baax baax lima yalla yàlla ci mbolo xajuñu ci dara koku mom buñ waxante suñu yalla rek tax lolu suñu borom momako defal kenn ci taal yi ñaar fukki dërëm rek xajul fii xajul maa ko sàkkoo nii nag maa ko bëggee nii ndax sëñ Modou Aïssa ci yoonu murit bi rek la doon doxal moom la doon jàngale ñun it ci loolu rek lañ tegu kon nag mboolem koo xam ne yaakaar nga Cheikh mohammed Lamine Bara bakke wala ngay soppe wala nga leen kole ba ci man mi leen yàlla boole ba doon seen jëwri jëwri da ngeen ci taxaw mu gaaw li loolu rek laa bëggoon a gën a Rafal li ngay gis ni xejuma fenn ngay gis ni bu passé fenn ndax bu mën ne cëpp Cheikh Ibra day dikk day dikk loolooy problème bi. fii ngeen ne nii soriwu leen fii chance boobu nag bu ngeen ko abe te ku ne xam na ne jéggi siraat bu yombee sax Ibra Fall la ko bépp taalibe bu jéggi siraat mu yomb ëllëg Cheikh Ibra Fall la ko jaayam keroog ba mu wàccee liggéey la jaayante loolu bañ ko jéem a yëkkati war koo yóbbu ci barab yi mu diis gën mel ni bâtiment bi sëñ Abdourahmane wax ak moom ci baatin Cheikh Fall nee na booba sëñ tubaab bi ma liggéeyal sama jamono yëpp jox naa ko ko liggéey gi ma ko liggéeyal nekk fii ak moom ba mu dem ma topp ca gannaawam nee na mu ngi jàkkaarloog malaayka yi ne leen naan suñu borom Ahmadou Mbacke mu ne ko am mu ne ko topp gi ma la toppoon fii ci àddina li ma daj ci yow day boo mënta jaayanteeg suñu borom ba malaayka yi daj si taalibe yi jàll fii du ma fi jóg mu ne ko jaay loolu defal naa la kon kooku mëne su ko fay kon nag na ngeen góor góorlu te sax ci ndigal tey jaamu yàlla mu yàlla te sax ci ndigal tey ndigal li moom ab taalibe nag fonk ndigal ab sëriñ nag doo jébbalu ci moom ba pare te fonkoo ndigal boo ko defee yaa ngi yaa ngi wàññ yaa ngi wàññeeku ci lu bari te ko Mbàkke Kajoor gii nag fii la yoonu murit sosoo fii la tàmbalee fii la maam Seydou Ibrahima Fall jébbaloo fii la Serigne Touba jotee turi yàlla bi gën a mag ci ismulaay azam fii ci la ko amee. kon fii la lépp la tàmbalee fii la Serigne Touba wootee woon kon bu ngay amee sens. suñ baara daan dox fii di wërande di wër fii ci dëkkam bii di wëndeelu fu ne dugg na fa ngay jël seen tànk yi di ko fi teg war ngeen a góorgóorlu de te xam ne sëriñ baara waxuma la sax mu dox ak tànk nga jaar waaye dëkk bu mu jaar rek nit faatu fa ci guddi googu doo doo tàbbi sa am du am nit faatu tey mu jaar fii rek tey ci guddi ci jaar fi rek dem doo tàbbi sa maa ngi jaajëfal ñëpp képp fu daayira joge rek joge rek joge rek mang leen di jaajëfal bu baaxa baax di leen sant nak di leen ñaanal ngeen dik ci jamm ak salam te delu delluwaat fekk njabot ki ci jamm ak salam liggéeyam seigne touba nak tolu seigne touba bo fa yonne sa sa dom bu dikke don sa kilifa nga yonne fi sa jabar bu dikke don sa jekk non rek musal bi lol la kon ndigal sëñ Tuubaa rek moo fi nekk dafa wax ne duubu makaarimal axlaa wàcc ne bu jida ala nifaaq place yi jotaay yu mel ni yombul kon bu ñu fi dajee nañuy góorgóorlu bu baax a baax nañuy góor góorgóorlu te xam ne euh, Sëriñ Tuubaa jagleel la def loolu nag kër goo dugg fekk ko fa li tax sëñ moo daay sa tàmm fii ne ma fii la kenn xamu ko du man maa ko sàkku sama bopp sama bàyyi ba fii ne ne fii la si Abdou Aziz Baara bu mag ma ku ne xam na ko ne dëkk bi fii la waaw mu ngi noonu kon na góor góorgóorlu ku am lu am lu kenn amul da ngay góorgóorlu kon fu waaye mën a jóge rek waaw jeex na jeex kon sens sens boobu ngeen am. am góorgóorlu lañ bu baax a baax a baax waaw fi ngeen bokk day bu leen neexee tiitaru fi ngeen bokk man mii ngeen di farakante topp mooy. mooy lu ci man. bu la neex fu leen taxaw tiitaru la ndax di ko sabab mooy defar naa sama jikko te defar naa sama jëmm te du ma du ma yaafus te gaynde laa du ma arrière waxoon naa leen ko daal waaw la ma am it maa ko ñaqal sama bokk jaayante ko mbooloo mi fi amul kenn ku fi jébbalu ci sëñ moo ndigal ma ko may waaw looloo ma may moo jox ko te ku ndigal taxa naaje boo jógee di nga dabe fii nag fii nag kenn mënta am loo fi liggéey loo xam ne liggéeyu kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax fi ñu ngi ñaan Bara sa aajo ci biir activité di gërëm taalibe yi bu baax nag di leen sant ndax gis naa seen jëf ci man ci man gis naa bu mu wootee ni ñuy def waa tey dañ may indi addiyee ba indi ma sax addiyee bisaab bisaab xonq nga xam ne fa la yéeneen sànqal bi mu ngi fi ba ci sanqal te loolu Sëñ Tuubaa rek lañ ko dem siyaare bu dul Sëñ Tuubaa defal lañ la loolu Sëñ Tuubaa rek lañ ko dem defal ay jamono waaw ay sànq waaw waaw lu gis nit ñi nekk lu ne ak yene ji ñu am lolu day yok pas pas day yok jom day yok ngor serigne tuba nak tuba tuba nak nak dafa mësa dox ba yem ci mbolo bu toll ni ñi wérang serigne bi ne tak ba ci yag ne ala lu ngeen di wérang mu ne ko mbacke may la yalla may rek lañu waxtaan mu ne bu mu dess ben bo xamne mënul ma leen ko jox yene koy sappu seen bop ñu ne ko ban mbacke mu ne fulla ak fayda kulak ak fayda mosoo gis bo sëriñ booy dem naan ko ñaanal ma fulla fayda amul amul borom moo koy sàkkul kon seen tànk bu leen bu ngeen di dem na ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk yi na yi na te kenn ku ne la nga da koy te ñe bi ñay daraja ak ak leneen te ñett yi ku ko Iblis moo lay suruxal daraja ak dara ak dara ñetti dara yi ma la wax ku ko moytuwul mën ngaa dugg ci kàmb nañ dellu ci njàngale Cheikh Rafal daraja ak dara ak dara yi nañ ko moytu góor ga nag dafa mos a yelwaan bay dugg ci benn kër goo xam ne benn góor gu mag la fa fekk moom muy yelwaan téeméeri at yi xaw naa jege ñu yëkkati saako ceeb jox ko sarax ko ne ko ñoo la ko jox mu bëgg a yenn saako bi ñun am am am gaa yu daw si ne ko góor bi danga ngaa màggat bàyyi ñu yenn saako bi yóbbul la ko mu ne déedéet dama ne yéen leen ma saako bi laaw man lañ ko jox maa ko moom gaa di saako bi yan ko mu dox ñaari jéego gëstu mbooloo mu ne xanaa jant bi dafa so ñu ne ko déet mu ne kon mag yenn lan nit yàlla doomu adama lépp lu muy def na ko attan yàlla tegul kenn lu mu mënul te ku bëgga a taxe da ngay fase àddina da nga koy wan gannaaw loolu nag waxu mag waxu waxu wolof la àddina mënuñ ko wan gannaaw ndax ci la ci lañu yàlla wàcce jox ñu ci taraange baax ne laxat karam naa bani aadama waaw jox ñu suñu lépp fii kon mënuñu koo wàcc waaye nag loolu waxin la waaw te mooy loo am teel loo amul bàyyi bàyyi ndax ñetti fan képp la benn bés bi dañ ciy ree day nga jooy ci benn bi nga wàcc nga faatu muy ñetti bés yi da ciy jooy rey ci benn bi faatu ci benn Sëriñ Baara Mbàkke nag moom rek la yàlla bindal leer jagleel ko xamal ko ne mboolem ku la yaakaar ak rawatina sa njaboot ëllëg yowmal xiyaam du ñu jege safara waxatuma ñu di ko séen lettre bi ñëpp xam nañ ko kon nag yéen ni màggal si bésam suñ si di muxtaar wax na ne lambi lambi góor yàlla guddi lay doon mbër yëpp ay daje Touba waaye suñ bare kajoor lay waajee ñëw daan gaa yi ñëw fanaan si waat di muxtaar du waxante kon ñu ngi sant rek fu daayira yi fu rek sant leen di feddal nag sama kóllëre ak yéen ak sama cofeel ci yéen te du ma leen sori mukk fu ngeen ne jàpp leen na jege naa leen ndax na ci sa bopp ak na ci sëriñ bi yombul am yombul bokkul fay sëñ bi ku ne ci moom mën a fi yow sàmm la ar la yir la bo wacce mu taxaw la far ko la jebal la njool mak far mu ko la loolu la si Moussa ko wax ci way ko ñu ngi jaajeufal ñep sant ñep di sant yi soxna Dior li tax ma sant ko moy moy ndongo yep tay lama len waxon na len kilifa dina tollu foo xamne mënul nekk fii nekk fii nekk fii waaw mën a nekkal sëriñ bi rek jël beneen cër joxe ko ba ma leen ne kat naa leen ak moom gis naa bu baax baax ni ngeen àndee ak moom te loolu mooy ndigal ndigal yéen bi saa salaam da daan wax ne góor yi yàlla yëpp fi ñu gën a lantee ci seeni soxna lañ gën a ku la ci gën soxna rek moo lay gën loole nag yombul tànneef la tànneef isa kaana rabul bayti tut fii daari dañoo wax ne borom kër bu jëlee tama def ci biir kër kër gi di ko tëgg bu doomam feccee dafa ñu erreur ñu erreur kenn ku ne da nga am sey yitte bàyyi ko ngir sëriñ bi ñëw tok jël sa doole sa poos def ci jël sa ñak def ci ñun ñëpp gis ngeen ba ci magu taaliba ya, yele kon li am solo rek solo rek moy doomu adama liko war na ci nek te ngeen rafetal xol yi te jàppalante nekk benn jullit nag xaqan la tax ñi nangu sab jullite mooy na nga fexe ba jullit ñi mucc ci sa làmmiñ ak say pexe ak say wax waaye bu fekkee foo toll yaa ngi jëw foo toll yaa ngi jaxase di dem ak ñëw di dugg ci loo xam ne waroo caa dugg yaa ngi nax sa bopp te yàlla nag inna la ala kulli shay'in qadir inna laaha basirun bima ta'malun boko don fi da nga inna laaha naka yalla basirun aji gis la bima ta'malun ci li ngeen di def lolou turi bu jub kon nak serigne moday sa dañ koy ñaanal rek mbàkk kajoor gi ku fi am ku fi am pàkk nga sant mbàkk ku mën di doon moo la ko jox bi lépp métte ñëpp daw wan wane fii moo fi toog sëñ Abdou Aziz Baara moo fi toog waaw waaw waaw dugg ci jeex na kon taalib bi rek a fi ne taalib bi rek moo fi nekk lu waay mën a indi te indiwul ak taalib jëriñuwul dara kon ngeen góorlu góor yàlla yi ngeen góorgóorlu tey sellal nañu sellal sëriñ Baara bi mu toggee bi mu fi nekkee nekk fa la xel la gële ci daaram jooju am na ci ndongo yoo xam ne daan bàyyi ba guddi ñu yoot daw daw daw ci làmb yu seetaan yi te yenn saa yi mu génn guddi gi wër du leen gis am benn bés sëñ bi wër leen gis leen mu jàll di jël toog ba ba gars yi ñëw lu mu guddi guddi sëñ Bara daa toog xaar leen ñu dugg biñ dikkee mu ne ana fu ngeen demoon demoon ñu ne ko Mbàkke dañoo ci dañoo demoon Mbaba mu ne xanaa xamoon ne waxtu bi ngeen fi bàyyeekoo leer bi sat ci góor yàlla yi war a ñëw ci yéen day jóge ci yéen di ñëw fi man daan ne taxaw leen fii ngeen sikkar ba bët set ñaari taalibe yi taxaw di sikkar ba asamaan set jotaay bii nga ku ne ngi fi fii wala ngi fi joolaa ngi fi séeréer ñëpp ñëpp catholique sax am na yu fi nag ku mën nag da fekk dara newul nga toog bu la fa lépp fekkee nga xam ne wàllu la wax dëgg waaw cant gam fay woote kenn xamul nu mu toll. waaw nee naa ko bu jëwri yëpp meloon ni ma war damay noppal. dégguma leen de dégguma leen de.